Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te wax na ko du du du fee wax na loo xamante ne lu intéressant nee fu nekk nii waxukaay dafa yomb jot na tey ñu ñu ñu éliminer TikTok duudu ndem ndegam diir duudu mais ñi naan TikTok na fi jógee ñëpp dëkk bu développé day am TikTok day am lépp maanaam ñoom di def loolu ñu war a bañ changer format bi ñu koy defee mais mm. TikTok am na ci dëkk yu avancé ne Sénégal ni ñu koy doxalee doxalee wuñ ko noonu dañoo war a def képp kuy kaa wala ngay def lu bon comprendre nga ñu signal la gars yi jëlee fi lu mel noonu loolu fekkoon mën na nekk xam nga ne gars def nañ ko bu yàgg loolu moo mënul nekk tey bu fekkoon ne TikTok ku neexul ku mu neexul nga jóge fa maanaam ñiy def lu baaxul bari nañ fa quoi mënuñu faa jëlee ñëpp li kii kay mooy wax ak ñoom ñu koy def ne leen ñoom ñu li ñuy def ñu xam ko tañ seet ko tañ xam ne àdduna lii yëpp ay yëpp ay jeex quoi te ku nekk sa bés day ñëw nga dee comprendre nga ñu fàtte loolu yëpp loolu moo tax fay def nga mun faa def lu rafet mais tey jii nit ñi mënuñoo toog ne yow mbay da ngay bàyyi li ngay def forcé nga def ko te ñun mënuñu la juruñu la quoi tamit yow li ngay def yow la mais ku fa nekk xam ne yaa ngi fay def lu bon soo ko mënee bàyyi nga bàyyi ko moo gën parce que tamit TikTok bi heure bi ñëpp ñëpp a fay dugg paaye kilifa yeeg ñëpp dañu fay dugg moo tax lu fa waa di def na rafet quoi moo xam TikTok ak fu mu mun di doon quoi duudu li mu wax noonu la TikTok ñu ko man xam nga maa ngi fay gis sama bopp bu fekkee ñaaw fay am nañ ko bloqué tey ñëpp bokk si yam gars yi dellu si liñ nekkoon loolu la rek ah gars yi nañuy def lu rafet ci TikTok bi. inspiration yi bëgg nañ nga ñëwoon ñu si tuuti ah inspiration yi nga xamante ne waaw loolu xam nga ku nekk ak sa job rek comme ni mu koy waxee maanaam tey su ma waree defal mbay vidéo guddi bi damay seetaan mbay. daf may dimbale lu bëri man tamit damay xam lu xew si dëkk bi parce que ku nekk dama lay déglu. léegi mbay li ma soxla ci vidéo yi. li ci des nag loolu bopp la maanaam yombul quoi si benn côté parce que tey bëgguma mbay li doon wax ma wax ci ak moom dama koy bëgg suñu waxtaan man ak moom. mu nekkaat ki leneen du bokk ak li mu doon wax loolooy waral moom bu ko seetaane di jaaxle di naan waa kii man waxuma woon li kañ laa wax li parce que question bi ma koy posé loolu mooy tax muy waaru di kii quoi loolu la loolu la rek ñu bëggoon xam ndax exactement yan yan yan yan avantage nga ci am quoi parce que parfois nga def vidéo boo xamante ni bii yow da nga ciy gis sa bopp ci avantage yan avantage nga ci am waaw mooy maanaam nit ñi dañ lay xam bëgg la loolu la rek comme kii yooyu la la mun a jural comme yu mel nii tey maanaam lu si ëpp foo boo demee tey foo xam nit ñi dañuy rang di sonn yàlla mun na la dimbale yow ñu génnee la yombalal côté yooyu daal mm-hmm. mais côté bu dee ay côté xaalis moom TikTok man ooma si xaalis koo mën a keneen mm-hmm. waaw man maa ngi ci sama côté beneen business ci côté vidéo yi est-ce que mën nga ci am benn inconvénient nga laal benn Macky Sall benn oustaz kii wala diw diw diw mu créé benn problème wala dara quoi dal na ma si vidéo defoon naa si vidéo sax mooy bugaan mhm. bu ma ko defalee vidéo am na ñu ma doon woo di saaga di kii mais biñ demee ba comprendre tamit après dañ ne maa ngi jégalu parce que ñoom xam nañ ne mhm. ñi ma koy defal ñoom ñoo a bëgg ma leen te dama koy faral di wax ku woo pour ma def la mhm. da nga may fay ma lay def vidéo ah. su fekkee nag da nga toog xaar sa tuut mën naa fay rek def la mais ku ma ma moom da ñu ngi lay jaajëfal frère <laughs> Septima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te wóor